salaamaaleykum euh, mbokk yi may seetaan naa ñëpp comme ni dee defee ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñaanal kilifa diine yal na leen yàlla may wér di feebar nekk ci lopitaan yi euh, yal na leen yàlla may wér di ñaanal jiitu dem yomal xiyaama yal na leen yàlla yóbbu arjanna euh, di ñaanal ñëpp ñi dee bàyyi seen soxla di di ma seetaan ñëpp maa ngi leen di ñaanal di wax ne euh, comme ni ma ko defee woon ci suma vidéo bale passé bu ma paree ci suma vidéo bii ma def nii tey tam mbooloom koo xam ne danga nekk ci suma Facebook bi euh, di sama xarit ñi nekk ci suma Facebook bi ñëpp sumay xarit lañ ñëpp laa bugga ñëpp laa fonka waaye nag maa ngi ñaan euh, ci barke weeru koor bii bu ma génnee ci suma vidéo bi kulluxum koo xam ne danga ma daan seetaan te mosuloo seq ak man kool bu ma paree ci suma vidéo bi bu ma kenn kool bu ma paree li may wax ci suma vidéo bi mbooloom kuy mi aadama boo xam ne sequloo woon ak man kool maar bokkuloo ci ñi ma daan waxante téléphone bu ma kool duma ci discours ndax li ma wax def ma ñor te bu ma paree it bu ma kenn wax ne ma Alioune li nga def nii waruloo ko woon a def ndax man suma ma magi boppa laa man lu ma def rek dama seet seetaat xam ne dama ko war a def def ko ndaxte démba umpuleen ne Amzo génn na ba Amzo génnee Facebook la Amzo wax ca Facebook ba ñi may seetaan fii ñu baree nga fa woon déggal nañ ko bu baax a baax baax a baax a baax te ci jamono giñ toll nii ah comme Facebook lañ ubbi di ci gittaa sante di ci waxante wax yu ñaaw di ci defante man nag Facebook bii ma nit Alioune Sarr kenn du ma ci lebal ndawtal boo xam ne bu ma paree du la fay sa ndawtal lu ma ci waay wax bu ma paree ma nit dinaa def vidéo comme feyu ñu bin ma tontu la tontu ko bem leer tey nag ñëw fi pour saaga kenn xuloowu maa kenn xasumaa kenn waaye wax yoo xam ne record bi def fii des ba ci suñu setaati seti bugga naa record bu génnee ñu teg ko ñu indi record beneen tam teg ko ba nga xam ne bu ma deeyee buñ ne euh, Amzo kat waxoon na lee ba Aliou Sarr di dunda ñu gëstu ne waaye lii la ko Aliou Sarr tontu woon ndaxte Amzo démba ñëpp gis nañ fen yu rëy yi nga xam ne moom la fen ci Facebook bi yow Amzo man ma tey ma wax la kan lan lañ jote ak dafa am loo xam ne dama ko bugg a setal ci biir Facebook bii ba mu set wecc wecc wecc because of man ba ma jógee Sweden ba tey ba tey loolu bëggoon naa cee def euh, vidéo li tax ba defuma ci vidéo mooy wax bu sew ak détail dama koy avoid toujours boo loon seetloo mosuma mos ngeen a def vidéo gannaaw ba ma joteeg am zoo ba pare mos ngeen a def ma def vidéo rek tudda turi am soo mosuta am ndax man noonu laa dee defee ak doomi aadama boo tudd suma tur duma tudd sa tur boo ma jegewul duma la jege fu ñoo waxee sa affaire duma fa wax fu ñoo waxee lu bokk ci yow duma ci wax noonu laa dee dundee ak doomi aadama ba nga xam ne waxi am soo dama ko avoy toon waaye dafa am loo xam ne dama bëgg mu set ci bopp bi nit ñi set ci bopp bi Sénégambie bi set ci askan bi ndax man ba ma tamponkante am zoo àddina bi yëpp dañ wóor ne Aliou Sarr dañ ko yuus Aliou dañ ko dañ ko dañ ko euh, dugal mu dugal ci problème boo xam ne yoonam nekku ci waaye Facebook bi am zoo doon dem ci laay ni jàmbur di kool di wax suma affaire waa Facebook xanaa nekku leen fa woon bi am zoo doon kool ci laay di wax ci affaire jigéen ña ma fekki woon Sweden waa Facebook nekku leen fa woon waa man nekk naa baadoole boo xam ne nekk jaam baadool jaam boo xam ne dinaa dem Sweden ay nit ma defaral ma teraanga ba teraanga googu tax nit di leen di saaga di leen wax wax bu ñaaw ba tey ma toog ne nii Ablaye Sarr ak Sadio Sarr juruñu doomi hypocrite bu mel noonu Ablaye Sarr ak Sadio Sarr juruñu doom bu hypocrite bu mel noonu ca laa jóg tontu am soo waxanteeg am soo la may suma njaago ma demba yónni ma ma paate yónni ma ma feyuma xaalis ndaxte man Aliou Sarr kenn yabuma war maa xool ci kaw be ci suuf ne kaay ma fay la xaalis pour nga dem defante jeeg am soo Alioune Sarr du da nga dugg ci live man kenn nettaliwu ma man duma ma jeeg bu ñuy nettali man may diggal sama bopp maa ngi nii taal live di ko déglu kon xanaa léegi li ngay wax dafa leer ci nopp nit ñi gis nga man soo ma woowee ci nga ne da nga ma woo ci giite ngaaf wala buuxante da nga njëkkoon a wax ma noppi ma bàyyi la du ragal de sama xuddéem bi dafa del si waat man soo xoolee sama toogaay sa war nga xam ne man pare naa ca fajar du danga ne pare nga loo bax rek ma ŋaar ko yow ak bébé puy ak xadi konte loo leen bax suba ba ngoon de pare naa pour naan ko man am soo man ku ma xam ci dëkk bii lan moo tax say jeeg nanguwuñ tontu su dee li may wax amul nañ tontu kuy wax waxu fet su borom waxee di nga tontu man sama bopp man ci sama bopp man xale bu ma ci tontu di jaay sa ndey nangoo maa dama ne nag ña la yónni bëggaluñ la jàmm yow Alioune Sarr ndax suñ la bëggaloon jàmm doo tetuwe sama territoire ne man ngay laal man nag damaa pare buuxante ci mbaraat la yem man sama tur rek laa doon xaar nga tudd woo nga ma ci lu ma mën ma ci lu ma namm man ak yow ci biiru weeru koor gi ba keroog ñu naan allahu kubar dog jot na yow Alioune Sarr dama newoon du ma la tontu waaye yow su la bàyyee nii rek day neex man ku ma mas a dékku rek génn nga làmb gi daw bàyyi ma madame Zo man munoo maa yàq man baax naa ba pare man maa la gën ci bépp boor nag man raw naa la man man fii de naa di wax lu dëgg ma la fii de man man man am Zo may wax loo xam ne damay réccu naa lii maa ko waxoon man Adi Conté ak Bébé Pouye ña la yónni dootuñ ko defati du nee nga dag leen di jëla paar yow di nga loo doon juddoo sa àddina di nga rëcculoo sa ndey xam nga yow nee nga dañ lay nettal ne la am Zo dugg na laay man kenn du ma nettali man damay teg di la dégg maa ngi nii li nga nekk online ñëpp maa ngi jàkkaarloo di la seetaan yow Alioune Sarr man dama piree te doo xam ban Facebook a dugg di la seetaan doo xam kan moo dugg di la yundu barki Seydina Mohamed man maa la gën a doon intellectuel man ba jàng jotee damaa jàng te damaa kele ya man du ma sa morom ci benn boor gis naa la nag yow ak say nit ak ñi support waaye man I don't care xam nga lu tax I don't care parce que man ginaar neen tegu ma fi ay waay campagne leen dama ne naka dal dama ne naka dal liir ba day jooy ñu ne ko loo jooy ñu ne yaayam la ndam dafa na yaayam la ndam ñu ne bii baroo ngi ni jox leen ko mu naan dama ne Alioune Sarr yow du yow du Khady Konté du Bébé Pouy du kenn mooma ci fay salaire yi man dégg naa daal ba pare Alioune Sarr man Alioune Sarr ci wundiwu lañ dajee ci pënd ba la ñuy tàkkalikoo nii nga ma gisee te ne ma kàccat nag teg xati ko ne mi nga mi nga xam ne nee nga da ko daga rabu abaka aca nañ dem yow daa comme da ngaa ñëwoon si witel bëgg nga del si waat da nga ñëwoon si witel wax del si fekk ma fii di nga xam ne jeeg nga fi fekk yuuxu dina jóg fuñ ko foogeewut du nee nga mënuma dara si witel mënuma dara ci société bi ku weddi laajal ma morom du nee nga dooluma dara mënuluma dara ci dëkk bi duma la tontu. yow duma la tontu benn yoon yow la ma am ak la ma yor ak la may demee dina la ump te dina ump say marom man nawloo ma la nawloo ma bébé yow man nawloo ma la Alioune Sarr nawloo ma bébé puy nawloo ma Khady Konté que yéen ñett nag war ngeen mën a ànd ñett doomu penn naari ngeen waaw ab baax yaa ma ngay wax waxagut yóbbanteegu ma wax ma dégg ña ngay wax ne damaa tudd seen tur ñooñu jooy la benn yoon yow yaa nekk di tëgge yow Alioune Sarr Gambie toj nga Gambie toj nga Sénégal yow bëgg dee ma nga yow dangay tëgg léegi nit mu may la dara nit ka dig la war laa jox joxu la nga saaga ko ci ay minute man ànd naa benn xale di ko fëkkata man ginaaru kenn nenu ma man dégg naa daali Alioune Sarr ca daali njëkkee man boobu doxal fekk na ma ngemb man ku ni góor jigéen maa jël nomba wan man ba Alioune Sarr tukki jotee tukki naa ba dawal ci oto yi dawal naa ci oto yi ba takk ci oor yi naa ci oor dama ne génnal damaa bëgg nga ñëw fii jàkkaarloo ñëwal ñu def image kanam ak kanam luy doy doy du nga dawoo saala yaay ndeer ndegam yow mi nekk Canada toll ni mbër nga mel ni ñay sa kanam ni mbëru dugub yaa dawul sàkkatuma ak man dama ne xët ba dit dafa jigut kooy génnal ñu jàkkaarloo du nga da ngaa mën ndegam yaa dawul cinquante mag man kaso nag soo ci yàggee da lay indi des euh, fuite de mémoire day yóbbu say bopp kasoo mel noonu yàlla lañ ci yàlla musal kaso da lay indi dépérir ah ne nga da ngaa ngeem la ngeem ndegam yow la sa taat diis cinquante mag man mii samay taat diis gan génnal man daw ma saala yaay deer man Alioune Sarr man munoo xas du ci ndey du ci baay du ci bàjjen du ci nijaay du ci maam yow doo juddu gàmbi yow dooli gàmbi nga xanaa yow fu far di am man nga war a faral man mii fa bokk yow koo pënd di fa dës toog yow doo juddu gàmbi yow muy sa wàllu ndey di sa wàllu baay amoo daraay juddu gàmbi yow juddu saalum nga yow doo benn juddu gàmbi juddu saalum nga yow yàq nga ko man mii nga laal man xale bii man xale bii xale état ah doo doo ko defati yow man xale bi xew ci jamono maa xew gis nga ni si la ca xewee noonu laa xewee la nakari teguma la ko kumer karamel yàlla taal bu yàlla taal saabu ci matt moo gën fay ko man yàlla teral na ma su fi yemee sa neex Alioune Sarr du nee nga yàlla teral génneel say nga boole ñëpp ci wax ji du ma wax ak ñoom xam nga lu tax du ma tudd benn turi nit parce que ñooñu setul naa sama wax ak ñoom setul naa la may wax ak ñoom ba pare te wax naa ñoom pare naa ci waaye dama ne Khady Konté ak Bébé Pouye mi nga jëla part doo duñ ko defa ci àdduna du nee nga doo tax ngay wax saa yoo xëyee di nga wax Adji Sarr ndax Khady Konté ak Bébé Pouye ne naa suñ deewee ba su tey sama sabar nga ca wet ga su Khady Konté deewee tey ma tëgg sabar dangaa réere mbir waaw yaa ngi doog a jot ci bébé puy man ba ma defaree bébé puy ndax bébé puy sërëg ti set laa ko fekk muy sol bébé puy sërëg ti set laa ko fekk muy def tekkiwul dara tekkiwul caapa ndayam bébé puy ah du nekk dangaa dangaa dangay faral bébé puy maa ne bébé puy tekkiwul caapa génn Alioune Sarr maa ne duulkat la fenkat la ndax du ma ko saagaay dama ne du ma saagaati lay Xadi Konte maanaam Xadi Konte tekkiwu dara démb ak tey du nekk dangaa jéem a génnal nañ jàkkaarloo man daal daw ma saala yaay ndeer man du ma dellu ginnaaw man oto ba ca jiitu jiitu naa ca ba pare sànni karawaas ba man yàlla teral na ma su fi yeme sa neex man li ma dégg ci daal bés boo fa àggee di nga jaay sa ndey jaay sa baay jaay say mbokk Alioune Sarr dama ne la Asou Ndiaye baax yaay mi ngay wax dama laaj ko maay kan Bébé Pouy mi ngay wax dama laaj ko maay kan man Samba Linguère laa man su wax ji bëree du man waaye si jëf ji bëree man la man Alioune Sarr man xale bu pare bii man ak sinab cara tolloo yi ci jamono ji ci garaat man dama xew man Alioune Sarr xol bay bëgg-bëgg na ba pare nit du bëgg di bañ xol bay bëgg bëgg na ba pare nit di bëgg di bañ barki Seydina Muhammad koo gis mu bañ la tey rek démb bëggam setu tool taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën fay ko man lu baax la ma def ak yow duma ko duma ci delsiwaat kon nee nga mosoo lekk sama ñàkk yàlla bu la fi weer bi feeru sol sa ñaan yi yàlla ko yàlla dégg mu tombe amin ñu rob la suul la alin waaw man am foo ko ne xam ne Samba Linguère laa yow Alioune Sarr man mii man ngay wax du ma mës a leeral bés bu ma àggee ci leeral su boobaa wërëwa dina dem ko yuuxu dana juub fuñ ko foogee wut du dangaa mën a wax rek di wax Alioune Sarr de su dee Sarr nga sant dagal bi fekk si waar ma siñ dën coow li léegi mu féete côté dinaa la wan la yoroo di bal ay sota naa di tela man fi du gaynde la am noppi ji ma noppi na tekk ji ma tekk damaa ne tekk rek noppi boole koog dal waaye du ragal de man may gaynde di saalum saalum piir man may gaynde Alioune Sarr mën a defanteeg euh, téeméeri nit ak fukk ak juróom man du ma doomu Gambien waaye yàlla may na ma baat ci Gambien ni ba su ma ne tisoole ñu ne maaram yaa yaaram kàlla Gambien ñooy sama ambassadeur loolu la yàlla def yow teguñ la fenn yow moo sa fobeere la la Gambien def. man Gambien yi ñoo ma jiital teg ma ci kaw maay seen ambassadeur ñuy sama ambassadeur ma bëgganteeg ñoom tànk loxo loo ba kan baat ba gémmiñ fii ku mer karaamel yàlla man Gambien ma bëgg teg ma place duñ def lu ma yëgut du ma wax luñ ma yëgut ba jaa ba xew su ma ci ñëwee sama li ñu jiital teg ma ci kaw dama ne Alioune Sarr yow Sweden gii ngay wër su dee da ngaa bëgg di wiser ma kar kóol ma kóol sama jeeg bi Elisabeth Lesen muy maire Soleil Tuyau bi man séminaire gii ma nekk di Alioune Sarr man dama fee tekki dégg fi daali fexe naa nag ba ku ñu artiste bu wàcc ci dëkk bi man ngay yëkk a laajte fexe naa ba tàkk ba sama empreinte siwiden ndax siwiden gii ku fi dugg man ngay laajte da nga naan ana Amzo borom siwiden waaye ànd naa ak woy wax Amzo borom siwiden waaye ku jël ndam li man mii newaguñ Alioune Sarr borom Canada man mii maa jéeg man mii la yàlla teral sawil nga tëddi nga naani ndox yow ak say jéeg seen xol yéen a tàng man awma lu may wax ak yéen yow nag waa la defee da nga am firmement da nga war a dem ci cicatrice yi ñu jag la xool ndax yow mii est-ce que kaso ba àndewoo foo woon ak problème bu bopp ndax kaso nag soo fa demee lu ne la fay fekk xale góor yi dinañ la forcé tëddoo la dinañ dinañ la réeb tëddoo la dinañ la juutal tëddoo la dinañ la def lu ne moom ku ci génn rek soo amewul hémorroïde di nga amee bopp dem yow yaakaar ne xëy na sa bopp bi dafa dem ca kaso ndax nag wan iya ah du benn fan du ñaari fan yow lu suy di si naan sakaas yow sakaas Alioune Sarr dama lay yërëm ndax yow goroo di ak ñàkk ngor comme da nga mën a wax di wax kaay ma tegal la sa voice yi voice yeeg ma doon sën kaay ma tegal la ko àddina dégg xam ne man lu ma wax am na téere neel tekk di déglu man ba ma la bàqee woo wax léegi nga mën a wax ne dañ laa fay nga wax man voice ba ma tegal ne ma am zozo du ma mos a jàkkaarloog yow yaay sama ambassadeur du danga nee nga da nga mën a wax di wax saaro bay bi tey laa leen di tegal voice yi ngeen dégg nel tekk rek man sama lépp preuve la du ma a kenn yàllaa ngi nii te suma yàlla nel tekk rek may ma ma ñëw nel tekk neel tekk rek man yooyu yaa may wër waaye man wëruma la man sama estaaru bopp laa man nam ma daraay kenn yàlla teral na ma su fi yemoon samu neex xëy di liggéey rek sant yàlla la Alioune Sarr man benn jéeg mayu ma dara kenn defalu ma lenn ci àdduna pensar que cambia. Assalamu alaikum Boki Gambia. Assalamu Neltek yow saaro doto ko defate yow man dii nara dugg man intellectuel bu mag bii ci réew mii nga ne man nga baak doto ko defate yow jàppal ne sa ñëw yërëb du gaawati neel teek rek dugal nga live léegi wallaay fu waxante lu ñaaw xejul suma digganteeg yow te diggante suma digganteeg yow te sentuwuma ko suma digganteeg yow ndax xuuge xuuge bokk ma yaa ko daan wax wallaay fu waxante lu ñaaw xejul suma wallaay fu suma digganteeg yow te santuwuma ko suma digganteeg yow ndax xuuge xuuge mbokk ma yaa ko daan wax barki démb laa def anniversaire nga taxaw wax ma lu kenn dootul dindi man loolu laay nekk loo xam ne moom laay jàkkaarloo ak yow ci live sa anniversaire dellu si mbaa nga am lu baax ma taxaw live waxal la su sa lu baax waaye man laay parewu ma laay nga jàkkaarloo man ñu waxante yu ñaaw loolu nekkul ci man suma digganteeg yow please loolu nekkul suma digganteeg yow ame jara loolu nekkul suma digganteeg yow te tey nag def nga ma lu ma naxare ba ci kanam yàlla man dama am ay gan dama am diina fii te Seexu Tijaan bu fekkee man laal naa puudar ci suma kanam bi yal na puudarawuma de so war a comprendre heure différente nee na rek danga dangaa mën a wax rek di wax man ba ma la bàkkee ñama woo yëngatu man laay fu waxante lu ñaaw xejul suma digganteeg yow te sentuwu jàkkaarloog yow ci live sa anniversaire dellu si mbaa nga am lu baax ma taxaw live waxal la su sa lu baax waaye man live parewu ma live nga jàkkaarloo man ñu waxante yu ñaaw loolu nekkul ci man suma digganteeg yow please loolu nekkul suma digganteeg yow amit jara loolu nekkul suma digganteeg yow te tey nag def nga ma lu ma naxare ba ci kanam yàlla karama ma la woowee la kero bi ma la woowee saaga la nga woo ma ba somb nanguwumaa jël voice bi nga ma seen man xale may dékku Alioune Sarr waaye maga may daan du nee nga pareegoo man tamit pareegu ma dama la wax ne ne pare naa takku naa ba mel ni kénkili baa te loo nam rek namm naa lu ko raw dama ne balaa maa xam ne gaynde la dagaatal bii fekk mu fii si di xam ne lépp dëgg la pareel te xam ne sa jejjoo ñi dinaa leen dóor du dëgg ba da xeex pareel te am na sa jéeg jooju a partir de tey fu ma leen gis dinaa leen langaamu dóor leen ba dox seen kaw pareel yow pareel te dagg paas du yaay seen avocat maa ngi toog di la xaar pareegu ma nag soo génne rek ma dugg pareegu ma benn yoon heure boo paree rek pare naa maa ngi nii changé sama ordinateur bi ba mu fees heure boo paree Alioune Sarr pare naa sama tur rek laay xaar heure boo paree pare naa maa ngi lay xaar.